koy ziar bu baax xam naa moom borom këram ak ñaawaa waa Canada yëpp sama xarit aussi Matar Gueye mhm. euh, ñoom ñi nga xam ne ñu ngi côté Canada alors euh, je pense que lii c'est c'est la suite logique des des choses le président avait déjà donné le ton euh, et avait même parlé de euh, saisir l'Assemblée dès la semaine prochaine et je pense que ci ci tempo boobu la nekk mhm. je pense que wax na le 3 la wax le 3 c'était quel jour encore jour bi muy wax. lundi lundi donc euh, mercredi ñu def. Euh, conseil déjà. Mhm. ñu ñëw examiner ko fa ça veut dire que semaine prochaine bi mu waxoon certainement. Euh, soo moytuwul booru lëndëg yooyu affaire bi dana yegg ci table président assemblée nationale. donc pour dire que voilà dialogue national bi li ñu fa waxtaanee en tout cas ñi nga xam ne ñoom ñoo accepté dem ba ñu jàpp ko président moom xamle woon na ni. Euh, ci point yi nga xam ne am nañ ci accord certainement duñ ci changer dara donc euh, loolu ci la bokkoon te bokkoon sax ci li tax euh, peut-être coow li gën a bëri parce que ñi dem dañ leen taxé de dañuy dem dili <laughs> ñi demul ñoo leen ko taxel mu nekk loo xam ne aussi comme ni ma ko waxee rek man ci sama xalaat bu gàtt jàpp naa ne ku mel ni Khalifa Sall moom foofu la mënoon jëlee aussi candidature am donc c'est normal mu dem tey aussi ku melni ni Karim le PDS a accepté aussi d'y aller euh, ñu fatali le dialogue national beulé le PDS avait décliné. Mhm. ba loolu tamit dañ koy faté et je pense que sax euh, li jóge ci jafé jafé Omar Sarr Omar Sarr vous vous vous souvenez euh, bobu temps presque moo doon coordonné PDS mais mom il avait pris sur lui d'aller à ce dialogue national là je me rappelle bi mu jëlee kàddu sax waxon na ne. Euh, PDS yónniwu mais il est là en tant qu'acteur politique. et je pense que. c'est une rupture. rupture donc le PDS qui avait décliné mais bi Moudem, au cœur du dialogue et va certainement derrière. Euh, permettre à son candidat de pouvoir se présenter. Moui mhm. Karim Wade ak euh, Khalifa Sall mhm. aussi je pense que le président avait déjà donné le ton y a instruire le ministre de la justice. Euh, à trouver la formule pour permettre à Khalifa et à Karim de pouvoir participer à l'élection présidentielle de 2024 pour moi, ce n'est que logique euh, logique euh, dialogue national c'est la continuité mhm. et je pense que le président comme il l'a dit dialogue il avait fixé les choses à 15 jours pour que nous, ñu euh, rendre euh, li nga xam conclusion yi mais également euh, lolu bañ fa jógee aussi je pense que li gars yi waxtaanee ba teunk ko mu nek ay accord lolu tamit ci doxaline bi mm. fast track lay utiliser assembler le jëm et ça va passer euh. ah non ça va passer comme à la poste. mais mais députés bon ñaar yi euh, peut-être que bu voter parce que président euh, bon bon c'est c'est un problème interne que dañ leen bëgg et que Karim justement a mais est-ce que tu penses que il faut d'abord si on sait que évidemment président que Khalifa am na fay député. PDS. Ah, mais député député yi wax loolu moom certainement duñu waa wàllu non évidemment duñu waa duñu waa duñu waa taxaw Dakar. Uh-huh. parce que aussi bien wa wàllu que wa taxaw Dakar ils auront intérêt à ce que ça passe pour que ñu mën retrouver seen i candidats yi nga xam ne ba léegi bu fi yemoon duñu bokk. Uh-huh. <laughs> il faut ñu rappeler ko. Uh-huh. bu yemoon fii madame Karim ak euh, l'autre euh, duñu bokk. donc je pense que li leen di li leen di pour ces assemblées, ils seront les premiers à, à voter cela. Mm. Maintenant, euh, on imagine que aussi, wa Benno Bok Yakar voter parce que mm. aussi c'est le vœu euh, du, du président Macky Sall. Donc, euh, donc certainement, ça va passer comme lettre à la poste mm-hmm. pour, pour les deux cas. Et puis, ak yenen yi nga peut-être war nañ réformer mu peut-être parrainage un yoy nga vraiment c'est des points yo xamné mm-hmm. ça a fait l'objet de de consensus. Très bien. Bamba alors mon nekk projet de loi bi ñu examiner euh, euh, président Sarkozy si révision constitution pour Karim ak euh, ak euh, Khalifa Ababacar Sall ñuy xaarandi également modification code électoral bi ngir seen bokk atum 2024 Nous nañ ne ñoom kon dialogue bi ñu dem euh, muy PDS ak wa taxawu kon dialogue bobé amna nag jeexital waaye jeexital gu bax ci seeni wette bien sûr euh, Mohamed. Mm. élection 2024 yi ñu jëm ni euh, kaaw Karim Wade Karim Wade dina sa saf sàpp bu baax baax. ah oui loolu wax. 2024 bii nii déjà euh, wa PDS dañ ci saf sàpp. Mhm. ndaxte tout est déjà calculé tout a été déjà réfléchi lepp lo xamantene Karim Wade ak ay ñoñoom def nañ ko pour wara mëna bok ci élection yi. Mhm. nek na ci lo xamantene ñi ñu ngi si euh, liggéey bi ta liggéey bi nak dina sotti fii 2024. Mhm. et beaucoup ay indices yu ñu koy waree déjà man limay may dégg di ko wax souvent il faut que gars comprendre que Karim Wade actuellement nii may waxit bu demee élection il sera éligible hein. Karim Wade amul lu ko téye mu nekk candidat. encore une fois ma expliquer nee naa leen Karim Wade a été condamné de cinq ans. Mhm. te condamnation boobu wax naa ne ça ça a commencé li nga xamante ne mooy en 2015 et en 2020 légalement Karim n'est plus condamné te toppatuñ ko peut être plus jeune pénam. parce que boo xoolee sax pôle des avocats yi nga xam ne mooy Karim Wade ko nee carrément que Karim Wade problème éligibilité problème parce que Karim est éligible mais le problème qui se pose moi, que dañoo bëgg wan li nga qui ne xar sénégalais que Karim Wade la ko Macky Sall tegoon ak ay ñoñom dafa nekkoon loo xamante peut-être que ñoom ce sont des des querelles politiques wala li nga xamante moy ay magui politique la yoo xamante dañ ko defoon pour jëm justement écarter li nga xamante moy Karim Wade. Mhm. mais Karim Wade ci élection 2024 gisuma lu koy télé déjà candidat en plus bokku na ci li gëna tax. tey waa Pastef ak ay ñooñu euh, kii di Ousmane ko gën a jàpp ne euh, que li ñu defoon Karim Wade du leen ko def parce que dañoo jàpp ne Karim Wade ba léegi kenn génnewul loo xamante ne mën ngaa wax ne lii la luubal si Sénégal wala en tout cas teguñu ko si bëtu Sénégalais yi waxuñu aussi Sénégalais yi que Karim lii la def ay malfestation ba tax ñu jëm ko écarter lu dul euh, dañ koo jaay doole peut être koo def li nga xamante ne mooy peut être ay maguy politique ba tax ñu écarter woon ko en 2019 mais ku ñu xoolee li nga xamante ne mooy cinq lañ ko tëjoon wala cinq lañ ko daanoon cinq yooyu jeex na te loolu avocat yi nee na loolu du coow li léegi nag wax ji mooy bu ñu jëlee aussi si wàllum dialogue bi Mohamed il faut comprendre que dialogue bi ki si gën am li nga xamantene moy peut-être victoire moy wa PDS sama dama japp né PDS c'est une euh, c'est un grand parti parce que PDS ñom peut-être que ñoom seen liggéey nekul li nga xamantene moy mooy liggéey bu ñu nekk si plateau diko wax wala seen liggéey nekul liggéey de grand bavardage mais seen liggéey c'est un travail de profondeur ñu ngi koy liggéey si suuf te lépp loo xamante ne euh, wa nañ ko euh, pour que Karim Wade mën a candidat de un bu leen fàtte ne coow mi nga commencé dama ko yàgg wax diko ko répété parce que le Sénégal, ça passe inaperçu mais c'est un fait révélateur pour waree tout est fait prêt pour que nous ñu depuis bi ñu demee si parce que le tax ma wax ko mooy. ñu tuddee ko protocole no Massali. ñu tuddee ko protocole bi nga pourquoi moi? jusqu'à présent tant que est là au Sénégal. Hmm. Mohamed il faut comprendre que Abdoulaye est le père de la politique sénégalaise c'est le maître. de l'échiquier politique au Sénégal maanaam lépp lu ñuy dem si wàllum politique ku fi nekk di wax waxi politique Abdoulaye Wade tant que mi ngi existé moo lay jàngal moo lay wax fi ngay teg say tànk. Mhm. te nag bu Abdoulaye Wade déplacé woo te xoolal benn déplacement la Abdoulaye mës a def bu déplacé bu Sénégal yëpp bàyyi si xel ñëpp di ko waxtaanee mooy déplacement këram ba Massalikoul Jinaan parce que li mu si waxoon mooy. na Macky Sall mi ñew ñu jëm waxtaan lo xamantene ne nekkul woon très lu jëm si li nga xamantene moy mi mais li jëm si mom diggante mom ak mom parce que seen diggante warul ñaaw parce que mom anti guillemets bu formé wo bu formation di am mom mo ki formé Macky Sall ci walum politique mu jàpp ne nag dafa ñaawon que Macky Sall wala mëna faté passé wala mëna faté ginnawam jëma jappé ki nga xamantene moy euh Karim Wade wala euh, Abdoulaye Wade comme c'est ay ennemis lool loolu buñ ko réparé parce que buñ ko réparé gis nañ né ki nga xamantene Moy, euh kilifa gi di Muntaha, que mom dox jamm lay def sa wax jamm lay def ne. Hmm. won na fi ki nga ne Abdoulaye Wade le président Macky Sall ba ñu seen loxo ñëpp gis bi xamné de mais ci comme qui di Macky Sall souvent day politique après. defatul le effort te man li tax nak ma wax qui amna luñu souvent

de la famille libérale. Moi, mm-hmm. jàpp qui qui di Karim Wade ministre de la famille libérale ba léegi. Macky Sall ak lu mu ànd ak waa Bennoo ak ci Macky Sall est un fils de Abdoulaye politiquement parlant parce que c'est libéral lañ ko formé mais aussi qui dit Idriss Seck ak lu créé parti libé euh, euh, aussi bu leen fàttali Idriss Seck aussi si euh, li famille libérale lañ ko formé donc Abdoulaye Wade nag moom pour moom yéene

éligibilité wala inéligibilité man dama japp ne sax bu fekké na amna ku ñu xiin ni ni ko xamantene dina wala du bokk wala est-ce que réellement après mujj dina si génn moy Khalifa Sall parce que subaab moma worugul mais Karim wad mom bokk si élection yi amna ko ta appareil politique bi yépp c'est déjà préparé pour que mu ñëw bokkat ci langue te bo xolé wa PDC ñi ngi ci liggéey bobu man kay limay wax moy élection yi di ñëw ni moy wa PDS ban taxaway lañuy wala defee parce que ñom peut-être que ñom tay amna ci seen candidat moy ki di Karim Wade te euh, li nga xamantene moy Euh, administra administration bi yëpp pare na pour que mu ñëw léegi nag ma euh, wax ji mooy. Mouhamed daanalal xam ne mooy il faut ñu xam ne nag Karim Wade kenn gënu koo xam réew mi jafe-jafe bi koy mooy. waaye Karim gëj na fi di jafe laay jëm boo ma dégloo jafe-jafe bi mooy. Mhm. golo du bay babu du dundé bañuy bay ñun ko gisugul woon dañoo xamul fu mu nekkoon. Hmm. loolu nag mën na am mom bu ñëwé et entre temps il y a eu ben vide bu nga xamné euh, euh, euh, une opposition radicale occupée na bien sûr bien sûr des gens yi nga xamné tout le temps ils sont sur le terrain et ils ont mouillé le maillot ah. bien sûr mais nag maintenant Karim nak bu ñëwé mais xam nga té lool sax bëgg naa ñu def ci. après ben tour de table bu ñëwé il doit il doit beaucoup bosser il doit il doit travailler. mais xam nga aussi il faut comprendre aussi que la politique c'est un discours. Mm-hmm. Mon bu tout le monde l'attend Bon xoolee Sénégalais. mais et la réalité du terrain aussi hein. d'accord d'accord mais dama ne les Sénégalais. Sénégal yépp ñi ngi xaar l'arrivée avec impatience de Karim Wade ah, ñi ngi xaar ban lan lay àndaale comme sérieux ah. ñi ngi xaar lan lay wax waa koñ ba ñi ngi ah. xaar ban discours lay andi ko xaar Karim Wade bu ñëwee dans les jours à venir il va atterrir au Sénégal hmm. Karim Wade bu ñëwee dina xamal Sénégalais yépp. lan moo ko téewoon Qatar dina xamal Sénégalais yëpp lan la ko Macky Sall def comme li nga xam mooy yàq deram dina xamal Sénégalais yëpp que moom Karim Wade lan mooy projet si Sénégal dina xamal Sénégalais yëpp fan la mës a teg tànkam si biir Sénégal ak ñi nga xamante mooy waa parti démocrate léegi nag ah. wax ji mooy Karim Wade nag kenn gënu koo xam état ndax loo ko mënti waxal waxal il faut nga nangu ne xam ne état te Sénégal nag hmm. dañoo jëm si ay enjeux yu am solo 2024 ah. mooy enjeu pétrole mais am na ñu fi xam état te ne fi aussi ah. xam nga politique politique hmm, hmm. politique coow la waaye état xamin la ah. dama ne politique coow la mais état expérience la hmm. expérience boobu nag kenn mënu see génne Karim Wade parce que Karim bu mu fàtte ne mooy pétrole la def xam na li nga xamante mooy lé oh, yàgg naa oh, jëfandikoo ak dëkk arab yi si wàllum pétrole te bu fàtte ne aussi annonce yi fii la ko Karim Wade kon te Karim Wade candidat yi nga xam ñu ngi koy xalaat moo si ëpp ay bagages. Ah, malgré non non non malgré c'est mon avis. waaw c'est ton avis c'est mon opinion c'est mon opinion. ma ne moo si ëpp ay bagages. mais mais loolu opinion C'est sama opinion la mën nañ ko contester moo tax nga bàyyi peut-être avance. dama ne mën nañ contester waaw bien sûr. Ah, est je te l'accorde Bon, nee parmi les candidats. Karim moo fi ëpp bagage. il est en avance c'est discutable hein? il est un peu en <laughs> avance. loolu dama ne la mën naa la ko démontrer. il est en avance on peut en discuter. il est hein? en avance mais il est en avance par rapport ak nga xamante ne les les pressentis candidats. mooy il est en avance mooy état dañ koy xam. mais politique ay waxtaan la ma ne. peut-être que Olof Ndiaye day wax ne waaw Olof Ndiaye day wax ne joob lu bëri wax lu tuuti ma ne mm. Karim bu ñëwee dina xamal Sénégalais ne état dañ koy xam te bu nekkee état bi ñu jëm enjeu yi Karim Wade a pour préparer l' état en 2024 alors